Ndiaye. jërë ngeen jëf mbir mu ñu bari seetlu ci réew mi l'observateur moom it seetlu na ko ba xëy di ko waxtaane muy inspecteur impôts domaines yeeg ni ñu mel léegi ci politique bi yéenekaay bi Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye Abdoulaye Daouda Diallo Mame Boye Diao ak Ousmane Sonko ñoom la l'Observateur xëy indi seeni nataal ba di ñu xamal ne ay inspecteur impôt domaine la ñu ñu ràññee lool ci géopolitique bi te du ñoom rek ndax journal bi mi ngi ñuy wax ni mbir mi xewit la xewit wi docteur Alassane Ndaw di jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi ngi wax ci l'Observateur yi mu jàpp ne moo ko waral inspecteur impôt domaine buy politique lan mooy avantage baak lan mooy handicap ya journal Groupe Futurs Médias bi xëy na di ko jàngat ni inspecteur impôt domaine yi mel ci politique bi anki dina kay mi ngi ñuy xamal ne du ñoom rek fonction fonctionnaire yi te bari nañu ci politique bi journal bi nañu bu njëkkoon jàngalekat yeeg avocat consort lañ daan gën a gis ci politique bi léegi nag fonctionnaire yi wàll si nañu ci fës ci ne ci lëjj ba ci bopp ak mu njaay siise bu ONC 3D dañuy wax ci xët mu njëkk enquête kay ne fonctionnaire bu yëngu ci wàllu xaalis sab engagement politique dañ ko war a encadré Youssou di PCA bu Sonacos nañu ci enquête kay politique dafa yoonu gaaw doxin wu yeesu mu indi tudde ko open press tour Bougane 2024 tribune nañu moom borom open press tour bi di Bougane Gueye ma nga woon ca Tamba ca Kédougou ca Kaffrine ca Kaolack ak ca Fatick ngir faase ji fa Macky Sall ak waa këram li jaral laaj jamono ji point actu nee nañu mooy bu fi Macky Sall jugee lan mooy doon ëllëgu mu fi bàyyi ndax gis nañu ne militant yi fi yàgg xaajowuñu militant yi soog a yegsi Amadou Ba mi ñu bëgg fal journal bi nee nañu amul lenn luy garanti ko topp ndax féewaloo gi am ci biir dëgërati lii lépp laaj la yu journal bi di point actu xëy samp ci xët mu ci xët mu njëkk la mandat photo bu président Macky bu Aly Ngouille Ndiaye bu Mame Boye Diao ak bu Mahammed Boun Abdallah Dionne ni ñu wane ginnaaw Macky fil seen yoonu bopp fas yéene samp seenum dënd ci élection présidentielle yi seen jëf yooyee journal la mandat ne nañu ba léegi Macky Sall mënagu koo wanaasu li neexu te wanaasu mi ngi ci xët mu njëkk bés bi le jour technopole ba ci ba di ñu ko def ko yéenekaay bi gis na ne bu ñu ci sàkkul pexe dina jur musiba ci environnement ba ak ci wér géeramu askan wa ñu wax ci wér géeramu askan wi ak journal Le Quotidien mi xëyee xibaar buy neex ñeel jigéen ñiy dund ak woppi cancer ci réew mi mu di ndimbal ak njàppale di subvention bu jógee ci ministre microfinance économie sociale et solidaire di Victorine Ndeye jëm ci jàppale ay jigéen yu amee cancer ci réew mi journal bi nañu tànn nañu lu toll ci ñaar fukki jigéen ak juróom 125 femmes ngir accompagner leen ci tànnit yeneen juróomi téeméeri jigéen ngir tàggat leen démb lañ doon signé convention bi ci diggante ministère bi ak di convention bu toll ci ñaar fukki millions ak juróom ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre démb la woon moo ne woon bés bi ñu jagleel wàllu napp gi ci réew mi la sinekaay xëy ak ñun ci xëtamu njëkk ci xew-xew yi waa CAPS coalition des acteurs de la pêche du Sénégal xëy woon ca marché jën ba ca Pikine fa la xew-xew yi amee woon doonoon ci teewaayu Pape ministre bi ñu dénk napp gi ci réew mi acteur de la pêche yi bàyyee ko woon fu nekk ci réew mi joxonte woon bi nee ëmb ba toll ci juróom-benn weer moom la yaayam xoj ba mu dee ca jamaga ca ndar moom benn étudiant moo fa toj bopp baayam butéelu gaz la ko dóor ci bopp